yemoog alxamis fukki fan ak ñett ci weeru juillet ci atum 2023 mu ndigal la ne joxe na ko boole ko ay ñeenti kuréel yi muy togg bi xam si ñu ngi koy amal ci tokkooru Serigne Cheikh muy wilaya ba fatihul bis bi safinatul amal ak ñaari guddi ndak ñaari guddi Dakar mbokk yi kon bu ko defee ñun lañ fas yéene àndal ci biir waañ bi xaalu safiun li sarfi anhum basari ورغبتي عن سوي العصيان في البشر خالو سفي لتفيد إلى ملكي أمري عن الكون في سف وفي كدري خالو سفي لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبلايا أستكي ضرري قالوا سفيه لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن في القدر قالوا سفيه لخفي نهج مرجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki Wilaya TV ñu ngi leen di دولي bu baax te ci bés bu tedd bi nga xam ne si ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko digle ñu àndoon koo ne yéen ndaw jéeg àndal ko yaakaar naa bii mooy troisième fois ñu rafet lu baax a baax ànd bi nga xam si ne suñu borom boole nañu ko te ànd bi dem na ba jur leneen loo xam ne si ne am na xameel am na am na cofeel te loolu suñu borom bi nga xam ne si ne moom moo ñu ko boolee ndigali moom bi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha joxee rek lañ jot ñu ànd ko waa wilaaye ak euh, samit amaan Kéré Mbay ak ñaari guddi Ndakaaru yi di ci nos di ci ba dañu dem man liggéey bi sax dañ ko min min ko xamé ci né ndax lo xam ci def ko trois fois yaakaar naa boo ci dikaté di nga xam bu baax fi nga jaar ba niñ ko andé won daw jéek andat ko daw and ko ren ji non lañ ko andé diko diko diko ko té ni té te te liggéey bi sas moy ñu doon féete ci walu restauration ah, di daara mu Fatima Bisri ñu and ko restauration wilaya and ko restauration Safinatoul Aman and ko restauration ah, ñaari gudi Ndakaaru liggéey boobu nag nga xam si ne moom la ñuy dénk muy liggéey muy jëm ci wàllu xewle yooyu xam si ne seen war a yóbbu ci la nekk nii di ko di ci liggéey liggéey bu am solo ba xam si ne liggéey bi mu toll nii daanaka ñu ngi cappaandaw ye maanaam mat na li li xam si ne moom moom la def nga xam ne fi mu toll nii oto bi ñëw ñu jël xewle yi ko fas yéene ko jébbal doomu aadama yi sëñ Cheikh Mamadou Mountakha ku ko xam maanaam xanaa dañ ko ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam loolu may ko fan gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram tawfiq ak xibaar sanatul daare ni wér ak wér la rek koy ñaanal Mbàkke Bàlla ndax ku na xam ne lépp loo xam ne si ne digal nañu ko rek njariñ jullit yëpp la rawatina taalibe yi kon loolu buñ ba njëgee ba bi rek ba ak ba mu ñu ko waxee mbégte moom lañu àndal moom ndax ku na xam ne moom ci mbégte ci lay dox kon mbégte moom ne si moom moom lay dox ba digal ñun lii nga xam ne si ne suñu njariñ tey ak ëllëg mi ngi ci yàlla ni yàlla suñu borom wasaare ji bi yëpp yëpp yëpp jàmm ak salaam tawfiq ak xibaar sanatul képp ko xam si ne indi nga fi jàngoor yàlla na ko suñu borom saafara képp koo xam si ne indi nga fi tawat yàlla na suñu borom saafara képp koo xam si ne indi nga fi jeexi jaax àdduna àllaaxira suñu borom jàppandal lépp ak Seexul Xadiim euh, salaamaaleykum wa rahmatullah sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra euh, noo ngi ziar sëñ euh, Basir mu yàgg fi te wér sëñ Modou sëñ Ahmadul Maxtaar jël nag nayoo bi ak cent yëpp jaarale ko ci jëwriñam ju tedd ju mag ju sëriñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mu jàllaleel ni ko ci mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo bokk liggéeyub euh, Tóokër bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex barke sox mu al Karim ndax liggéey bi nga xam ne moom loolu nu sant kat tawféex yi jaam yi rek la ci jublu tawféex boo xam ne bii da ko yéene jaam yàlla yi rek loolu la ci jublu nu wëlbate ko santaat it euh, waa wilaya bi nga xam ne danoo bokk ñoom liggéey bi ci ndigalul Sëriñ taxa seen jëwriñ ju màggee di sama sëriñ sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma lëkkalenu nu bokk nun ñaari guddi Ndakaaru ci ndigalul jëwriñ Baye ñu nga jeng ak ñi mu àndal nu bokk liggéey bi sant ci yàlla bu baax kontaan ci tey ñaan sëriñ bi jàppal nu liggéey bi moom mi nga xam ne lu mu jàpp rëcc mu jàppal nu liggéey bi ba moom fa mu ko bëgg a yóbbu mu yóbbul ko fa boppam barke sëriñ Touba ak Cheikh Ibra barke mu Moussa Mbacke sant nañu nag bu baax yéen ñu ngi leen di ñaanal ndax ñaan yi du mën a ñàkk ay ndaw yoo xam ne nii dañoo jël seen tànk teg ko ci liggéeyal yàlla ak yonent bi sëriñ bi ku mel noonu boo ko gisee sant ko gërëm ko ñaanal ko sama mbokki bi yi nga xam ne it ñoo jóge ci ay barab yu fasante ko ñii jógee buntu Pikine Pakku Lambaay bokk ci kuréelu ñaar bi de Ndakaaru ñii jógee Grand Dakar ñii jógee Grand Yoff ñii jógee Medina fu nekk nit jóge fa ñooñu itam da doon jaadu ñu sant leen gërëm leen di ci jël kenn koo xam ne kii mooy sëñ jiili mii di nga xam ne waajuram Baye Kalsaan Dieng mooy waajuram topp ci Baye Ndiouga Dieng mi nga xam ne mooy président daayira bi moom it dañ koy beral cantuk boppam ak sëñ Kalsaan Alsaan mii nga xam ne moo jiite mook Pape Diouf ñoo jiitee liggéey bee nga xam ne moo ne ci buntu Pikine nu bokk ko muy daayira yoo xam ne nii dañoo jaxasoo seey ci ñaari guddi Ndakaaru doon fédération ci ndigalal sëñ Muntaxa Basir ni munoo waxee ne yéen ak ñëpp ko bokk ñaari guddi Ndakaaru sëñ Muntaxa daf ñu wax ne yéen ak ñëpp ko bokk fexe leen ko yaatal da ngeen xam ne du yéen dong ko moom yaatal leen ko képp ku ngeen njortu Serigne Touba na ngeen yegg ci moom ngeen jotal ko ndigal li te xam ne yéen ak ñëpp a ko bokk. wëlbate ku jël ab taawam Serigne Kosso maam Thierno di taawam boole ko ak ñun mu nekk président d'honneur jiite mbooloo mi moog Baye Ndiouga Dieng loola tawféex la joo xam ne ji wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla sant ci yonent bi sant ci Serigne Touba sant ci Cheikh Ibra di wàccee kàddu gi foofu xam ne it comme da ngeen ne ci yitte di wax wa rahmatulah maa ngi bu baax jërë ngeen jëf قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن